أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تبرا واقتفى آثارهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi naaw sant yàlla julli ci yonent ñu leen di nuyu di leen sant daje bi teewaay bi di leen ndokkeel ci guddi gi di bëggit taxawaay bu rafet bi ñu fas yéenee sànni ay kàddu yu néew fii ci guddi gi ñëwuma fi di lu ñuy tuddee conférencier dafa am yeneen tànk yu mu fi war a dox ba di ko fi dox ñu ko fi waree dox it yàgg suñu borom di ko soog a dogal tànk yi ak jotaay bi ak daje bi ñu ñaan suñu borom mu bokk ci jataay yi nga xam ne du neen soo xam ne bis bu suñu borom ñi toog nga xam ne ñooy borom jataay bi mooy ñi fi teew ñëpp bis buñ gisee jeex itam bépp kenn ku nekk dal di wóolu ne tooguloo jataay yu neen tooguloo ci jataay yu perte guddi gi ñu wax ne dañ ko tudde sant maam Cheikh Mbaye di Cheikh Ahmadou Kabir kon guddi gi moo ko moom fas nañu yéene koo jagleel waxtaane ci moom ak lëf waxtaane ci lislaam ndax ak taalibe moo am solo moo am njëriñ waaye ci biir cadre lislaam lay amee njëriñ ci lay amee solo ci lay mën a nekk itam ndax taalibe moom mënu la fay sëriñam waxtaane nañ ko ay yoon sëriñ bu mat sëriñ bi jaam bi tolloo ci sukkuraat lay tàmbalee teew sëriñ bi nag sëriñ bala caa jaam ba àgg dana ko faggul sukkuraat su sedd su woyof su gaaw sëriñ bu mat sëriñ bu ñu dee dugal taalibeem ci bàmmeel mooy jiitu taalib ba ci bàmmeel moo koy nangu moo koy teer sëriñ bu mat sëriñ mooy sëriñ bi nga xam ne soo ko wooyee rek mu wuyu la boo jàqee wala nga jaaxle wala nga tiit sa bopp ak nu mën a demee soo ko wooyee mu wuyu la wuyu ba gën a mat ba gën a rafet kon ak taalibe am na solo taalibe mënu dafay sëriñam sëriñ bi mat sëriñ dëgg bis bu nekk dana fàttaliku ab taalibeem dana nemm ko xolam nangami yoon ci waxtu wu nekk lu am am solo la waaye lépp ci biir lislaam sëriñ ci mat sëriñ sëpp dañu santaane li yàlla santaane ku ca jaar ndax kaamil mooy lan al kaamilu man laa yëg si nuuru maarifatihi noora waatihi mooy ki nga xam ne lu ko suñ borom mën a may ci boppam may gëm ko mën a may ak sañ-sañ bu ñu ko jox daraja bu ñu ko jox du tax mu naagu ci wàññi li ko yàlla sant bën bënu pise cheikhul kaamil noonu lay demee du may boppam wàññi lenn ci li yàlla santaane ak yonent bi ndax dañuy xër ci yàlla bëgg ko bëgg koo xam ne fonk fonk koo xam ne lu mu santaane moo leen gënal seen bopp gënal leen ñun ñëpp gënal leen lu nekk bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen gënal seen bakkan dañuy bëgg seen borom bëgg koo xam ne ni ko Cheikh Ibrahima ibnu Adham waxe rek mooy yàlla te dem àjjana bañ a mooy te dem safaraan liñ ko gënal ndax fu ñu toll suñu borom doon na leen di mën a wéttali bu ñu amee saa suñu wëlbati ko wan ko gannaaw moo gën a ci ñoom dem safara xam ngeen ne liir bi nàmp ci yaayam sax buñ ko tàggaleeg yaayam bis mu dee wala mu sonn lool ñoom ni ñuy nàmp ci suñu borom moo raw ni liir boobu di dunde ngir nàmp yoonu yaayam naka noonu taali bi bi mat taali bi itam dafa ami charte bi sëriñ bi matee sëriñ taalibe dina jéem a mat taalibe nan lay jéem a matee taalibe mooy xeñtu yoonu sëriñam fexe koo xam fexe koo bëgg fexe koo wóolu ndax cofeel ak wóolute ak njortul rafet mooy may taalibe bi ci sëriñ bi la mu bëgg lépp lu jiitu moo di wóolu ki ngay wóolu mooy ki la doy ci la doy amatul lenn lu mën a tax ci àdduna mu doya dina amatul lenn nit bu koy gën a diis ci sa xol wala mu di ko gën a foor ci sa xol ci la doy ba nga wóolu ko xam ne bu la newoon daanul ci teen di nga daanu ci doy googu mooy doy di doy diggante taalibe ak sëriñ daanañ ko nekk li xista boo xam ne benn taalibe gànnaar la woon di tërbiyewu sëriñam ay at yu yàgg léeg-léeg benn taalibe ñëw tërbiyewu benn at wala ñaar wala ñett wala ay weer ñu wàcce ko moom ñu te ko wàcce du mu yàggee mu laaj sëriñ bi ana lana tax loolu mu ne ko danaa la ko wan taalibe bi ñëw am ci juróom benn weer mu woo leen ñoom ñaar ne waa ji fi yàgg demal daanu ca teen bi bu dawee ba jub teen bi rek du ñemee daanu wàññi ci saam juróom benn weer mu ne ko demal daanu ci teen bi mu daw rek dal di jóotu ca teen ba sëpp jaliñ ñu dal di koy tàllal buum mu jàpp ko ñu génne ko mu ne ko lii moo tax ku fi ñëw aajoom faju mu dem ba ci da nga maa wóoluwul nit boo ko wóoluwul du mën a faj sa aajo adduna du ko faj àllaaxira te bi daf laa war a doy léppam doy la nga sopp ko ba sopp léppam lépp lu tax ci moom na muy waxe sax neex na loolu mooy tax aajoy taalibe gaaw a faju ci sëriñam ma ne sopp googu wóolu googu mooy indi sopp sopp mooy buum jiyeewu taalibe bi ci sëriñ bi abu bakrin siddiq radiallahu taala anhu di tax mu raw saxaaba yi dafay googu mu yonente bi sallallahu alayhi wasallam sopp ko yàlla sopp yàlla ba nga xam fu mu toll yaramam day tàng mel ba res wi mel ne dañ koo wàjj ba suy wax res wu ñu wàjj la xëy ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ku bëgg a gis néew buy dox ci kaw suuf na xool Abu Bakr ni Siddiq lu tax mu tuddee ko néew dañu ne bala ngay àgg ci sa borom da nga dee ñetti dee kër dee ñetti dee jooñ ñëpp dee gu ñuul dee gu weex déegu xonk déegu xonk mooy suñu borom xiir nit ñëpp ñu dil def lu la naqari di la ko wax di la xam ñoñal bañ la di la añaane nga bañ koo yëpp ñu di la ko def mu di la naqari di la naqari ba mujj dootu la naqari nga mel ne ku dee liñ la wax it du la sax mooy déegu xonk déegu weex mooy adduna yëpp bëggatoo ci dara bu dee wàll yi yàlla dong dong la bëgg ak yonent bi bu dee taali bi sëriñ bi dong dong la bëgg leneen safu ko deewu bu weex mooy deewu ñaareel bi deewu ñuul bi mooy sol sagar ci digg nit ñoo xam ne kenn ku ci ne dafa sañse ak sol la fa gën a rafet dàq ci col nga yemale kepp déggatoo xas ak ku la xas ak ku la tagg nga yemale mooy dee bu mujj gi Seydina Abu Bakar dee na dee yooyu yépp ba bi ñuy waajal xarit Tabuk koy du yonente bi ne waajal leen xare bi ku ne na indi lu ñu dimbalee leen bi nga xam ne ñooy xare ji Abu Bakar bi indee su yonente bi ne ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla ak yonente bi maanaam bàyyiwu fa dara pour moom alal ju teew fajul soxla yàlla ay faj soxla ñàkk yor dara ci sa loxo du tee sa aajo war a faju bu ko yàlla naree faj loolu du lu mu xam rek yem ci day zënq distation bu wóor la boo xam ne noonu la mën a dégg loolu mën a dugg boppam leneen mënul dugg boppam sahaba yi nag ñooy bàyyi murid yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bàyyi sëriñ sëriñ si mag sëriñ nga xam ne ñooy ñi jël seen tànk teg ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu jaaroo ñu di fa jaar ñeemu wàññi dara ci sunna yonent bi wala li yàlla digle dee leen ko gënal kon nag képp ku leen di roy na nga def ne ñoom ak taalibi ci biir l'islam ci biir cadre l'islam lay mate sëriñ bi mag sëriñ rëy lay njëkk a dindi ci xol ndax rëy moo alagoon iblis pour ñu wax ko ne suñu borom rek ko jagoo te ko ci fekk mu lakk la dañuy al jisaaw min jinsil amal fay day xeetoog jëf jëf ji nga jëf buñ la koy fay jëf ju xeetoog fay bu fi xeetoog jëf ji nga jëf lañ lay fayee aji rëy bu yomal xiyaamee suñu borom daf koy def mu tolloog mellantaan ñi di ko dëggaate aji bëgg adduna day mar ba xol bi tàkk mu tiim ndox mu sedd te du naan adduna takk ndoor rek la luy sax ndax nit ki xamul ëllëg lay faatu wala gannaaw ëllëg te bis bu tolloo ci sukuraat la mu amoon lépp fàtt na ko fu mu jaaroon ci bànneex wala xéewal mel ni mosu fa woon a jaar kon loolu dootu doon dara dootu doon dara te fu ñu ko bàyyee ci adduna te buy génn génn gi tiis ko ndax koom mu bari bu ci nit ci génnewul xaq yàlla ak yan lay doon ci roogi moo wala roogi di siisu ñu di ko féq muy metti fa metti yem mu di fa àgg bala ñuy dem ci li sëriñ mënal taalibeem taalibe bi ci boppam lañu war a njëkk a waxtaane taalibe bi daf mel na ko ku jëm ci bërëb bu tedd bu sell boo xam ne ku takk dara wala nga tilim dara wala nga yor dara doo fa dugg nan ngay sete ñàkk a tilim nan ngay ñàkk a yore dara xol mooy set ndax doomu adam melow xol lañu tuddee jikko melow xol ak yéene ji rafet ak cofeel ji ma waxoon moo koy tax a mucc moo koy tax a raw ay moromam mooy tax ak taalibe nit mat ah taalibe moom ak sëriñ ci mu soqi ko ci sharia waxtaane nañ ko ay yoon yu bari boo yéene xikmat cheikh ahmad bamba radiallahu taala anhu da nga ko gis ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam la soqi ko ñu xam xaqiqa xam sharia duñ ko werante ku jàng soq nag te xamulu xaqiqa fiq mooy lii araam na watt ko lii dagan na bu la neexee nga def ko lii farata la sangiloo ko bàyyi lii sopp nañ ko boo ko defee moo gën ci yow boo ko bàyyee du la lor waaye boo ko defee jëriñu léeg-léeg mu wowal xol fiq boo ko jàngee rek yem ci léeg-léeg mu wowal xol ndax ay atte ngay jàng yooyu ngay jàng xamalu la ci màggug yàlla gi dara xamalu la ci yomal xiyam wala bàmmeel dara xamalu la li yàlla may ay xaritam xamalu la ci lenn ay loi rek la ba waral ñi ko jàng tayam ci di wet di nit yàlla ni yàlla nag dafa def la ko soob dafa def la ko soob may ñi ay milliards may ñi ay millions may ñi ay centaine mille may ñi ay mille francs may ñi ay cinq cent may ñi ay cent francs may ñi ay cinquante francs may ñi ay dërëm bañ a may ñi dara li tax laa yusalu amma yafalu moom yusaluna li muy def kenn du ko ko laaj lu ko soob rek lay def waaye nag jëfandikoo na maanu jëfandikoo ngëneel moo di du sant jaam bi mukk mukk lu mënul te jaam bi bu waxtu ci tisbaar jotoon mu sibru wala mu soj ba boppam di metti tawat jooju tax jàppul tawat jooju tax jàppul waaye wóor na ko ne bu gisoon lu ko jaral jàpp mu jàpp te du ko wàññi dara kon lam mën lépp difu ko yàlla li nga mën si difu ko rek foofu la lay jàppee ndax li nga mën lépp nga war a def bu fekkente ne lii nee la def nga am lay yi wu tax nga ne nga ne mënuma ko te buñ tegoon xaalis bu bari léegi ne la def ko nga def ko yàlla xam ne kon mën nga ko da nga koo deful loolu moo tax kon suñu borom kenn mun la layoog moom loo néew néew loo def loo ñàkk ñàkk jëf am na loo mën liñ la sant itam lu mu dis dis am na loo ca mën li nga ca mën nag loo ca bàyyi rek ci foofu la lay jàpp léegi kon nit ki sañul ne yàlla kat moo ma bindee bindin bu tax mënuma koo jaamu wala moo ma bind bindin wu tax mënuma koo gëm ndax jox nga gëstu bi xàqam jéem a xam yàlla jéem a xam li mu wax jéem koo seet sa xel ndax fekkee ne jox nga li def nga li nga mën lépp yàlla toppatu la leneen mucc nga fekkee ne li nga mën rek wàcc nga ca dara loola nga ca wàcc bu dul yërmandeem rek mën na la ca àlak mën na la ca àlak ñu ne nag ki nga xam ne dafa bëgg a dem ci béréb boobu bu mel noonu te xolam bii ndax maqaama yi suñu borom di joxe ak teraanga yi daf ko àpp ci lu bari jëmm ji yiñ ko sant mu njëkk koo dindi ci boppam ba waral ñuy tërbiyee ba sëriñ bi di ko dindi ci taalibe yi mooy melay xol yi nga xam ne day woo safara bi ci jiitu mooy añaan bëgg àdduna rëy tayel yéene sa mbokkum jullit lu bon ba melo yu bari yooyu jeex bu fekkee nit ci mucc na ci te bu muccee ci rëy mucc ci bëgg àdduna daal di mucc ci yooyu yépp bu ci muccul ci lenn waru garam la mu xeex ak bakkanam te xeex bi muy xeex ak bakkanam jihaad la jihaad ku ci dee dem àjjana kon nit ki nga xam ne mu ngi teg bakkanam lu metti ngir bëgg a am jikko yu rafet yi tax a mat ba mën a gis yonent sallallahu alayhi wa sallam jahran ci lu dul nelaw mën a rammu ëllëg mën a jànn nit xam luy baatinam ak lu muy amee ëllëg ak fu ko yàlla féetale jihaad jooju ngay tàmbali fas ci yéene mu sotti wala nga dee ci diggante bi wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almawt faqad waqaa ajruhu ala allahi bi nga xam ne nit yàlla ñi seen roo yi dañoo daje ne am nañu boroom nañ ko seeti bi ñu demee ñii dee ci yoon wi ñii dànk de du ñu dem ñii dem ba àgg suñu borom beer ndee leen beer ndee di gën a neex ba ñu fàtte fa jógeen ne dañuy dëkk dootuñu dellu ñu laaj nag suñu borom waaw suñu mbokk yi nga xam ne bañ leen wooxee dañoo bañ ne ñoom du ñëw ne dañoo ami gàllankoor mu ne wala wala suñu borom ne wala wala adil xuruj la addu lahu uddatan walakin kariha la in bi asum fa sabbatahum wa qila qudu ma bu suñu borom bëggoon ñu ñëw kon mu woo leen waaye yàlla woowu leen ndax salte yi ci seen biir waruñoo ñëw ci kër buur bi moo tax ñu toog ñu ne ko waaw ñi dee ci yoon wi nag mu ne hayhaata wa man yaxrut min baytihi muhajiran ila llahi wa rasuli suma yudriku mawt faqad waqa ajruhu alallahi képp ku génne sa néeg ngir na ma yàlla di jihaad te jihaad bi ci jiitu mooy jihaad ak sa bopp sa bakkan nga dee ci yoon wi ci biir jihaad ji te àggaloo sab yool war na yàlla da ngay dugg àjjana ci ki xeex ak bakkanam ngir bëgg a tàggoog melo yu bon yépp xam ne sëriñ bi koy tërbiyee moo ko jaarale ci yoon wi benn mu xam ni li mu koy sant di dindee ayib yooyu wala mu ñàkk koo xam waaye li mu ko sant mi ngi koy def bu deexee ci diggante bi mel na ne ku àggale yoon wi ku dox jihaad ba àggale jihaad ndax suñu borom day fay yéene wa man yaxud min baytihi muhajiran ila llahi wa rasuli suma yudrikum mawt faqad waqa ajruhu ala llahi bala ngay mën a roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ci roy gi nga koy roy yool ba gën a màgg wala ngay roy sëriñ bi mat bi àgg am ci mu roy gi nga koy roy rek maqaama yam amoon nga am genn wàll ga wala kaar ba wala fukkeel ba dañ koy njëkk a roy ci xol bi nga xam ne moom la doon jëfe jëf jooju fekkee ne xol bu set wécc boo xam ne bëggul lu dul yàlla bi mu daan jaamoo xol bu mel noonu nga ko nga ko ci nga ko njëkk a roy bay mën a jaamoo na mu jaamoo yool ba mu amoon dañ ko am ndax alladina amanu wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim wa ma alatna min amalihim min shay'in daa ñi nga xam ne seeni waajur dañoo nekk ci yoonu yàlla di jihaar di xeex di jaamu yàlla di liggéeyee ragal yàlla di ko xamle ba jóge fi seeni doom topp jaar ci yoon wala ñu jaaroon di leen roy dañ leen di yëkkati teg leen ca dara ji seen i baay ak seen i maam amoon te du wàññi ca la seen i baay ak seen i maam amoon dara kon dañ ñu ñu koy indi rek ngir roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw rëdd rëdd yoon wi nga xam ne ci lañ war a jaar ngir mucc ñu war ko cee roy sëriñ si nag ñëw xam ngeen ni wax nañ ne téeméeri at bu nekk suñu borom dana yebal koo xam ne dana beesal si diine ji sëriñ si dañuy beesal diine ji ci xoli nit ñi di leen wan fi yonent bi jaaroon di ko yeesal ba mu bees seen xol ba ñu sawar koo def ba ñu bëgg ko ba sopp ko nit ki li muy waxtaane di déglu ñu koy waxtaane dëkk ca nekk ca ànd ak ña koy def day mujj saf ko ba nga xam ne bu koy def du ca am coono du def benn tëkkalluf benn effort du ko def lu dikk nag bu fekkente ne taalibe bi ñetti manzila la am mooy ñetti wàccuwaay dafa roy sëriñ bi bëgg ko dafa bëgg sëriñ bi topp ndigalam te royu ko ak taalibe bi nga xam ne dafa bëgg sëriñ bi roy ko topp ndigalam ak bi nga xam ne gisu ko waaye sopp na ko topp xeñtu na ay jeexitam ba bëgg ko bëgg googu tax mu sopp ko ñoom ñett ñëpp kan ku ci nekk ni nga am kenn ku ci nekk li nga am faj na soxla faj na aajo musal nañ ci li ma waxoon sànq ni sëriñ suñu borom dafa maye tabaraka wa taala rawanteel nit ñi ni mu ëppalee ëppalantelee wërsëg yi ci àdduna ni mu ëppalantee jëmm yi ni mu leen wóotalee ci ay melo nee na wala laaxira akbaru darajaatin wa akbaru taqdiran àllaaxira kat ca la gën a lëgë ëppee te ca la daraja yi gën a màggantee loolu kon jar na jullit ñi matal seen diine matal diine mooy boole liimaan ak lislaam ak lixsaan liimaan yàlla koy joxe ndax dañu ne ajuwul ci coobare nit ki mu gëm wala mu ñàkk a gëm yàlla koy def ci nit ki muy ko war a gëm rek waaye nag gëm day màgg borom a koy yafal di ko dundal di ko suuxat ba mu àgg fa dayo ba yem nit ki dana gëm yàlla waaye gëmul yonent ñooñu la ñuy wax ay déiste mooy ñi nga xam ne yàlla rek la ñu gëm waaye pour ñoom yàlla yónniwul kenn ñooñu ñu perte lañu ndax gëmuñu yonent yi ñii gëm yàlla gëm yonent gëm lépp lu mu wax waaye gëmuñu baatin am nañu ay ngëneel waaye am na fu mu yem ndax ngëneel buñ ko seetee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo jàngale xamle ko ba mu leer ci xadis yu bari ba tax ñu naan weddi ci boppam day alake alhaj malik si wax ne man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria képp ku peegul sere ba mu daj sag weddi lu lu jëme lu lay jëme ci alkande la te sharia yonente bi sallallahu alayhi wasallam dong ko fekk ndax weddi mooy xam naa li yàlla def lépp te lii bokkul ci li mu def loolu mooy weddi loolu lu rëy lu garaaw la kon kiy saxal moo ëpp kattan ci weddi ndax weddi moom lu jafe la bala ngay weddi bu fekkente ne jaam benn jaam dafa mas a jaral suñu borom mu far li mu bindoon lépp rey nit ñëpp ngir jëmmi jaam boobu ci nuux ba mu ko ne rabbi laa tasar alal ardi minal kaafiriina dayyaaran bi suñu borom yonent yàlla nooxin ne ko kaw suuf si faral bindee fi ci nekk yëpp suñu borom néewu ko lu tax dafa daal di def la mu ko wax rek kon noonu nag nuuxin ëppee daraja ba mën a wax yàlla ne ko reyal ñi nga bindoon ñëpp nuux rey ko ak ki nga xam ne amul daraja yi ñaan yàlla dara mu may ko ko te àllaaxira nag la gënal lente ga ëppee kon àllaaxira la fa nekk lu doyee doyuwaat la lu mat a lu mat a toppatoo la